Gambia reform programs hijacked by Jami enablers. A coordinator, according to Sheriff Kijera, chairperson of the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations, even after three years since the end of the Jami dictatorship, the Gambia's reform programs continue to be hijacked by former presidents, enablers who continue holding key public institutions. I think the government should do more to address such issues institutional reforms haven't been quite metrotic as it is supposed to be because of our country is being hijacked by these people who have a lot of influence in the government, Mr. Kriera told The Standard. Mr. Kijera went on to denounce the frequent recycling of many who worked directly on the Jamme either in his cabinet or in other public institutions, saying this action by President is a mockery of the 2016 revolution which is causing distress to victims of jame. More on that on the Standard newspaper. Mm -hmm. uh, Sheriff Kijera, chairman of the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations, mom nak be legi uh, si jame bi and the victims munge wahne wax ne nekon nguri jame fa nekkoon uh, nguuri many public uh, institutions or places ñoo ñoo nekk di serve this new dispensation after three years into uh, Barrow's administration waaye moom mu ngi wax ne rek lii dafa doon loo xam ne is a mockery to the victims ñoo xam ne waaw uh, seen rights yi dañ leen violate during the Jammeh regime waaw moom uh, moom Sirif foog naa ne uh, daf dee baaxoo di wax ci yu mel nii te moom moo jiitee victimes yooyu jamono ji ci réew mi mm-hmm. gis-gisam la wax Euh, foog naa ne dafa rafetlu comme jéego yi nga xamante ne nguur gi jàng koo jël ci li nga xamante ne mooy ñu gënoon a jege jàmme ñu jàpp ne xëy na moom jàpp ñoom ñoo ko gënoon a dimbale mu def yéen yi nga xamante ne def na ko ci réew mi te ba léegi ñu ngi des ci nguur bi wala sax ñu ngi leen di waat ñu ñëwaat ci nguur gi ne moom rafetlu loolu moo tax mu wax kàddu yu mel nii waaye gis-gisam la euh, nguur gi nag ku ne ñoom tamit ñoo xam seen doxalin ak ni ñoo defee euh, ndax ñoom ku liggéeyoon ak jàmme duñ ko mën a indiwaat ñu liggéey ak ñoom loolu moom euh, leneen la waaye tamit am na ñu ñuy wax na sax ne ñoo ñuy liggéey ak jàmme ay doomi réew lañ euh, te ñoom taxul ne ñoom ñoo tax yaa jàmme def lim def euh, te loolu waruñ tax su fekkee ne yelloon nañ place duñ leen ko jox am na ñu ko gisee noonu waaye moom am na nu mu ko gisee te tamit am na ñu jiite xëy na ñoom tamit seen yéeg-yéeg ak li leen dal ci you know révolution bu mu wax 2016 bu am xëy na am na doxalin bu ñu doon séntu euh, bu dee gisuñ ko dana am li nga xamante ne mooy loolu la ñoo fiil ak yu mel noonu but obviously euh, nguur nag ak ni moo gisee ak ni moo doxalee te foog naa ne doxalin nguur tamit du doy ñëpp donte ne sax démocratie la waaye nag ku ne am na sa gis-gis comme am na lim that opportunity mu wax lim foog ak lim gis loolu démocratie moo ko may te foog naa ne mun nañ koo nangul loolu am uh, not solo because mom, mom, sa wax mune ne ñoo xam ñoo help jamme pour ñu commit these atrocities against the people alleged atrocities because belegi con, kon it's not confirmed under a court of law so uh, mune ne ñooñu belegi léegi ñoom ñoo nekk di si government bi and those people are holding key positions Mune lolo dal daal daanaka dafa mel nii daal la si ñoom victims yi ñoo xam ne uh, you know these people ñoom ñoo violate guys and right Wow. comme ni ko Amadou waxee wax na gis-gisam pour man lu ma gis mooy ne. nguur gu nga xam ne amoon na fii ñaar fukki at ak ñaar jógee fii. ñu samp commission bi jaane commission ñëw pour gëstu naka la doon taxee alal réew mi yooyu loolu kon mun ngaa gis ne am na ko rafetlu wut mu jógee fu ñu indi TRRC seet ñi nga xam ne ni dañ jalgate seen àq ak seen yelleef. Mm. kon doxalin boobu ko doxu doon. mu jógee fa tam bëgg a change constitution bu fi indi woon kon kon mun ngaa wax ne lépp doxalinam. li si gëree bëri si réew mi dañ ko ñaawlu woon gisuma nag man koo xam ne dafa jàppale woon jaami ko amul kenn koo xam ne da nga doon jóg di def loolu sa on sa sa bugg a bugg a moom moo nekkoon ku nga xam ne nii njiit la lu nga xam ne ni moom moo laa def loo so time boobu nag no mu la doon def loolu nga am pour def mais wante loolu taxul na nit ko bon taxul nit kooku bon taxul tam nit kooku ñu baan ko ba du war a mun a tam liggéeyal réew waaye jaamay amul kenn ku nga xam ne gëw ma ne da ko doon jàppale si lu mu doon def lu bon moom moo lay sant pour nga defale ko ko nga bokk si nag te nag boo bokkee si exécutif bi wala si nangam bu la falee dara force nag nga bokk si lu mu nekkoon. waay waay waay foogaloo ne man jaame su ma waxee defal lii loo xam ne man leer na ma ne lii àndut ak ah, luwa. Mhm. mu ne ma def ko ma ne déedéet duma ko def mu daaxa ma mu andi next person mu ne ko def ko kooku mu ne duma ko def mu daaxa ko est-ce que jaame rek rek mun naa govern est-ce que all the atro atrocities yoo xam ne dañ ko accuse jaame loo xam ne dafa jalgati aha or Gambian ce que dina am that magnitude. déedéet ah, waaye so so ñi ñi ñoo ko ñoo ko doon support. Oh, because lu loo xam ne dafa dafa bon dafa bon rek. Ah, loo xam ne baaxut baaxut mm. yow su dee ne citizen nga believe nga ne this is wrong nit ki mu def loo nit ki I believe ne ma nit ki loo xam ne bugguloo koo def nit warul la ko def loo su dee ne daf laa daaxa na la daaxa su dee ne daf laa génne waaye history will judge everybody. su dee nee gis nañ fi ñoo xam ne daaxa nañ leen dem nañ sig nañ asylum dem nañ si other countries yi gis nañ ñoo xam ne fii dañ dañ doon xeex mbiri système bi ñu gis gaañ ne ñu tëj leen for so many years other sax dañ faatu foofu noonu si si process bi waaye all those things shows ne what is wrong cannot be right. yeah indeed. that's right. dëgg la loolu yëpp suñ ko waaye jamono jooju noonu. ngay gis ñeneen la defal lii nga bu ko noonu victime si dina doon gën a bari. kon ñii ñi yëpp tey duñ nekk si place bi ñu leen a wax. waaw gos taayam boobu noonu kuréel saa dañ koy bañ. ku ne déedéet dañ koy bañ. so janta bu ñu tiimoon la bu mel noonu rek dañ doon xaar ba kër gi sedd rek léegi jant bi sona beneen <laughs> kër ñëw na. soo ñu ànd ak waaye taxul nag ñooñu bon anyway loi nag su kum loi moom nit mënu koo fexee ba daganal lu bon mënul nekk. ok waaw ñu seet beneen